boo xam ne dafa wàcc ci ay soxna soo xam ne ni ak doomam ak sët ak ab sëtam sëtu borom kër gi ñu ñëwoon nag seet si bokk yi ak kilifa yi fekk leen fi di ko naqarlu di ko métitlu di leen massaw ah, di wax rek ñun ñëpp nañ jël suñuy xel dellu ci suñ borom tabaaraka ko taala mi nga xam ne moo ñu indi moo ñu yóbbu Ah, di di di ko muy muy tiis wu méttee métti nag mette métti te bette di ko jaal bokk yépp di ko jaal borom kër gi ak famille bépp di ko jaal aussi sëriñ bi nga xam ne ñëpp ak njabootam lañ te bi ko déggee rek mi ngi ci ab fatu sax mu ne ah waaw loolu nu mu demee ñu leeral ko ko mu tiis la lool métti lool na du ñàkk sax ay ndaw dana fi ñëw Eh, danañ fi ñëwaat ci gannaaw buñ jotee ci koor yi ba denc ko ba noppi danañ fi ñëw ah indi si eh, eh, nuyoob sëñ bi ak jaalam lu mel xewee te ñu yàlla natoo ñu ñu teg ñu ci bopp conseil municipal bi ñu jokkoo kilifa yi lii suñu warugar mooy yëgal leen ko ba ñu yëg ko ñu ñëw ba agsi ba xam naka la demee fekk fi kilifa yi ak famille bi ak ñu fi nekk ñi ko séq ñëpp waxtaan ak ñoom bañ xam ne Euh, ñoo bokk métit bi ñoo bokk naqar wi ñoo bokk tiis wi yëgal ko it kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te war koo yëg li ci des nag lu ñuy topp la di ko saytu lépp fuñ ci war a fare walla lu ci sëriñ bi war a xam luñ ci waxtaan ak bokk yi rek ñu ko topp loolu di ko dox ay daal euh, ñu ngi suñ xol na lool ci ni mu mettee lu mett la tiis wu diis a diis la ah ni ki nekk ci àll ba di jaamu yàlla di liggéey du lu yor loo terale dëkk bi sëñ Tuubaa ci dëkkam bi ak loo toog yore sa njaboot jékki-jékki rek dégg xibaar bu mel nii ah ci ni mu bette nii loolu amul lu ko gën a metti amul lu ko gën a tiis waaye nag ñu ay jullit lañ yoo xam ne yàlla moo ñu sàkk moo ñu fi indi te moo ñuy delloo te suñ borom moom ci coobareem lay jëf loolu ab jullit nag lépp lu ko dal rek day dellu ci gëm yàlla gi nga xam ne moom la ko suñ boroom indi kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàll na fi yem di di fas yéene li nga xam ne war nañ ko cee taxaw lépp daal ñu taxaw ko ci ngir jot koor yi mën leen di denc di jaale nag mboolem famille bi. dinañ leen nuyu mbokk yi fi daje ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa gi muy seriñ Abdou Lahad Ka eh, jiite dëkk bi ak eh, kilifa gi ma àndal mu jiite ndaamaatu muy eh, commissaire de Thiombane nee nañ sant baax ndax taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla ba mbir mi xewee ba nëgë ni éléments yi fi yebalan bi ñu ñëwee ñoom itam lan war a def def nañ ko ñëw nañ fi saytu yóbbu xale yi police ne soppoor itam ñëw na fi def liggéeyam sëñ Abdou Lahad Ka ñëw na fi moom itam di masawu coono moom it nañ koy sant bu baax am nañ ko cant ak ngërëm di xamal ni ko lim mu fi nañ koy sant bu baax a baax e, sunu xel gën naa dal bu baax a baax ndax mbir mu mel ni bu dalee sa kaw e, yu bari dalee xaw da nga koy fàtte waaye bi mu ñëwee rek masawu na coono sunu xel gën naa dal bu baax famille bépp kontaan nan bu baax a baax metti na waaye nag e, lu sunu borom dogal moom kenn muñ ci dara ndax comme ni ko ñëpp waxee rek. ah mbir mi mën naa gën na demee neneen waaye xañ na ñii rek li ci suñu borom boole woon kon moom nee leen di jaalawoo jaale ñi nga xam ñoom itam ñoom itam muy soxna yi soxna si nga xam ne yàlla dogal na mooy itam ci la bakkanam des nee ngi ko jaale ay mbokkam yëpp rek sa di wax ci kàddu sëriñ naar jenn euh, sunu kilifa mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Basiru yàlla daa dogal mu fekk ko Dakar moo tax waaye mel nit Eh, teew gi fi teew nii teewaale nañ fi ñëpp ak njabootum sëñ Bassirou gépp rek waaye ne santaat nag président eh, sëñ Abdou Lahad Ka wax dëgg yàlla lii moom sunu xol sedd na ci taxawaay bi rafet na lool jërëjëf mbokk yëpp sant nan sant nan bu baax a baax a baax a baax xam na ni lii moom safoon na la ndax la la la démb la am nga ñëw tey eh, def ci li nga ci a def lépp rek kon nag moom nee ngi leen di ñaan daal a ah, mbir mi nu mu gën a wayfal daal ngeen ko ngeen gën koo wayfal noonu rek baax na ba jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu